الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وخير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fu ñu mën di nekk ñu ngi leen ñu nuyu di leen ziyaara waaye di leen baalu xaq ci weeru mag wi ñu ne muy shahru ramadan mubarak di leen baalu xaq di leen baalu xaq di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole baal teewe ko ay déwén yu bëri yàlla nangul ñu koor gi nangul ñu jaamu yàlla yi ak lépp lu ñu ci dundale yaa rabbi gannaaw buñ jotee ndigal ci xalifa bi Cheikh Ahmad Tidiane ibrahim yes ataala allahu baqaahu yal na yàlla guddal fanam te may ko wér yàggal ko ci kanam njaboot gi mu yàgg ñoo tette gannaaw buñ jotee xalaat ak ndigal moolaaye mudirul mahad Cheikh al Mahi Ibrahima Niass nga xam ne moo xalaat bés bi gannaaw sin waajur bu mu ko daan fugloo di koy def mu jox ñu ci ndigal yeesal ñu ko ñu koy ñaanal yàlla moom tamit yàlla guddal fanam te may ko wér di ñaanal tamit imam al akbar moolaaye cheikh imam seydi si cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé ñu koy ziara di koy ñaanal yàlla moom tamit gudd fan ànd ak wér muy guddig laylatul xadri bi nga xam ne moolaaye cheikh Mahamadou Hadi maa ko baaxoon di def ren nag dafa am ay changement yu bëri yoo xam ne am na ci formule yi nga xam ne moom la état tëral pour bañ a ñu bañ a dajaloo bañ a booloo loolu moom formule yooyu du am ndax ku xalaat leelatul xadr rek di nga xalaat buntu kër Cheikh Mamadou Hadi nu mu den bëree nit bun xëyee suba dañuy toog di jàng fajar ba tàkkusaan di wàcce ay kaamil danga koy delee sax ca bu commencement koor la ñu di jàng ay kaamil ba bési leelatul xadd yi ñu toog ci buntu kër Cheikh Mamadou Hadi wàccee fay kaamil bu guddi jotee oo imaam mu ñëw xatmal nuñu ko loolu nag du am ren waaye kaamil yi moom dafay continuer comme nit ñi ni ñuy continuer di julli continuer di jaamu yàlla ñun tamit noonu lañuy ñu di jàng kaamil yi ñu ngi sant mboolem sëriñ daar yi nga xam ne ñu ngi toog seeni kër ak mboolem muqaddam yi kenn ku nekk yaa ngi toog sa kër di jàng li nga xam ne moom nga doon jàng dajaloo bi du am nag ren waaye leelatul xadri yi moom dina am la shakka ndax kóllëre goo xam ne waajur yi ñoo ko jàppoon jàpp ko te yàlla tax maa kaana lillahi damoo tasal wa maa lam yakun li gayrillahi inqatawan fasal lépp luñ sos te yàlla tax loolu dafay continuer lii Cheikh Mahamad Hadi bu mu def yàlla rek moo tax mu def ko jëlee ko ci baayam moolaaya Cheikh lislaam Haaj Ibrahim Niass jëlee ko ci maamam moolaaya Haaj Abdallahi ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy sunna su rafet te yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ne man sunna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyama كيف كسونا سونا سرافت سونا سوس يالله دو دنج دلو كي في يول بكرك بس بنش لي سونا سرافت لا سو خم نين دف كم هو غن نين الكو بني شيء جمانة كوفيد 19 من خم نه لمن أدنى بيب مي كورونا فيروس بي خم نه جانغ القرآن ممرك موك في من جلي ده القرآن لبلوم جارك لول دفعي مغ لول دفعي بركة ت القرآن ماي لسيا لول خم نه لبلوم جارك دفعي سل لتخ جبريل غن مولم ملاكي luñ wàccee ci moom alxuraan la lu tax yonent bi sallallahu gën mboolem yonent yi luñ wàccee ci moom alxuraan la lu tax weeru koor gën gën mboolem weer yi lu ñu wàccee ci moom alxuraan la waaye lu tax tamit guddig laylatul xadr gën mbooleem guddi yi luñ ci wàccee alxuraan la ban wàccee googu ñu wàccee ci alxuraan ñu fas yéene jàng ci kaamil yu limu yu takku ñaanal Sénégal ñaanal président ñaanal état bi waaye ñaanal mboolem kilifa yi diine yi waaye ñaanal mboolem àddina bi ñaanal Amérique ñaanal mboolem Europe mboolem continent yi ñu ñaanal leen jëf yi jeex ndax xay fekk yaa ngi koy dégg rek mucc goo ci loolu la suñ maam doon wax ban fekk ñu ngi koy dégg rek kenn muccagut ñu ngi ñaan nag ci barke kaamil yi nga xam ne fas ne nañ koo jàng fii ba keroog bés leelatul xadri bi ñu fas yéene koo mu ci bës ba incha allah dinañ respecté mesures yi nga xam ne moom la état jël pour. bañ na dajaloo duñ dajaloo dinañ def distance bu boobaa dinañ toog comme niñ toogee nii ak ñenn ci njaboot gi ba ñu toog xat mu ko ñaanal àddina bi pour balaa bii nga xam ne wàcc na fi ci àddina bi yëpp yàlla jeexal ko fi ñu ngi jaale nag ñi nga xam ne ñoo ci gaañule ñu ngi leen ñuy jaale bu baax waaye tamit di massaw ñi nga xam ne ñoo feebar di ñaan yàlla yàlla saafara leen kum dalagul nag ñu ngi ñaan yàlla bu mu la dal yàlla na ko fi yàlla génnee dinaa profité tamit ci occasion bi gërëm presse bi di la ñuy ñaanal yàlla di ndax démb la woon seen euh, journée journée presse mondiale ñu ngi leen ciy gërëm dina ñaanal yàlla yàlla defal la leen tawfiq ak taysir ba lépp lu ngeen bëgg a jàllale ngeen jàllale ko ci anam ak tal ak wér bi jaay Seydou ji sallallahu di leen wax ne ngeen suivre incha allah mbir mi. dina nekk online ci site yi nga xam ne moo aju ci pays bi ak site yu aju ci pays bi yëpp dinañ ko jàllale àllarba le 20 mai incha allah 21 heures képp koo xam ne ne jàpp nga presse en ligne bi rek di nga seetaan euh, incha allah leelatul xadr bi fu nga nekk ku nekk rek fu nga nekk nga toog fa bu kenn déplacé wu bu benn sëriñ daara déplacé wu bu benn muqaddam déplacé wu ñu def ñu respecté li nga xam ne moom la état bi santaane pour lan pour moytu pour lan pour fagaru pour moytu feebar bi nga xam ne euh, dafay wàlle ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla musal ñu ci yàlla na ko fi yàlla jeexal allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim